Euh, ma tëggaat leen si sama retour te du yomb dama koy yëngal bu baax incha allah. ngeer ax euh, ngeer bu zap incha allah dina si bëre ax ki ñuy wax euh, libidoor bu Ngoundiane libidoor tam ku ma yàgg tëgg la parce que mbër bu discipliné la boo xam ne soo ko gisee dafa sedd ni man soo ko xoolee day niru ko yàmbar waaye da koy yëngal moo tax ñu tëgg ko suñ combat yi du yomb moom drapeau Ndiaye Ngom la Lawbe Macky Sall.

suñu ànd ak suñu sago ànd ak wér ak le 19 Sa Thiès même bu dee man lay sumeeku bëreel dina bëri le 19 juillet inshallah dimanche 19 juillet même bu dee Sa Thiès man lay sumeeku bëreel dinañ bëri mhm. ok nañ te lu gënoon logique tey mooy ñu ne ok na ah Yékini Junior parce que loolu moo nekkoon moo war li ko waral li waral loolu parce que Prince xëccuwul pour tëgg combat bu mag voilà su ma bëggoon tëgg combat bu mag dëgg dama koy tëgg Modou Lo laay tëgg te du ma daf may yomb lool waaw parce que bëgg na ko man bëgg naa ko tey yàgg na xarit lañ musuma ko tëgg maa ngi si làmb yàgg naa si mu sàkk ko woon sa bu muy bërax Bombardier yàlla dogalu ko tey bëggoon bëggoon naa ko tëgg Ama Baldé mais nit du toroxal xaritam munoo tëgg say morom la du Modou rek mais même Ama sama nawle la sama xarit la su ma bëgg su ma doon tëgg combat boobu dama leen di sonal parce que même bu fekkee sponsor dina ñëw si kanam parce que mën nañ ko mais soo soo leen di tëgg da nga leen war a jox lu ñuy waajee te loolu ñuy waajee noonu dafa war a doon du consistant donc looloo waral dugg ñu si loolu bii nag yàlla moo ko dogal te si Yékini Junior la sokkee ko ndax nu Modou nekkee sama xarit noonu la ma yéegee doon sama xarit boo tax wax si moom lu sori daf may jafe waaye lu wóor te wóor mooy que ni Sa Thiès pare na démb fii ñu toog max mom ñu ngi fi ba 4 h moins du matin donc max mom déggoo nañ Yékini Junior fay nañ ko cachet bo xamante baxna même cachet bi fay nañ ko Garga Mbossé du nak montant bu ñuy wax parce que tam dama len yoreel respect dañ ma jox cër dama leen di delloo cër boobu ñoom ñaar ku ci paré si fani yi inshallah incha allah dinañ combat bi combat bi ma koy dox yag na comprendre nga

mun nañ toog autour d'une table waxtaan si ay fee rek Kandji suy tëgg tey combat am da koy dem tëgg Pa Abdou Fall suy tëgg da dem tëgg mais terewul mun nañ suñu association bi mooy dañuy ànd loolooy objectif bi du xeexante dañuy ànd war a ut dara si CNG dem toog waxtaan ak ñoom war a wàññilu dara si arène bi waxtaanee ko loolu mooy objectif bi mais du leneen.